Ibrahima kan ñu ngi lay nuyu. waaw fay naa la. may fàttali kon yow sa xamxam xam dafa màcc ci wàllub question aw ak yeneen institution yi nga xamante ne ñoo nekk ca biti réew nga nekkit membre fondateur bu RADDHO di liggéey tamit ci OSIWA kon ak yow mën nañu wax lu bëri ci actualité politico judiciaire bi nga xamante ne moo lëmbee biti réew ba sax fii ci biir réew mi ah, ñu dooree ko ak affaire Alex Sab nga xamante ne dañ ko teg loxo ci Cap Vert weerub soin boobu ak léegi ñu bëri ci ay dëkk yu am doole di laaj kon extradition bokk na ci États-Unis Mexique sax Colombie pour yow lan moo waral euh, kookule muy nga xamante ne consultant international la ñuy toppee wàllu blanchiment d'argent ba léegi mbiram mënagul leer mënaguñ ko atte te mënaguñ koo bàyyi. waaw xam nga mbir bi ngay wax euh, mbir bu xaw a compliqué la mbir bu xaw a tar la parce que euh, ci yoon bu ñuy jàpp nit dañ koy jàpp ci ay fànn yu bare nit kooku dafa jóge ci beneen réew ñëw def naa dafa ñëwoon ak aéroplane euh, wàcc Cap Vert mais bi muy wàcc Cap Vert dafa amoon kuréel bu ñuy tudd Interpol dafa waxoon euh, dëkk yépp yi nga xam ni ñoo bokk ci kuréel bi nit bu amee tur bi ak lii ak lii bu wàccee seen kër rek jàpp leen que parce dañ koy tuumaal fenn ci benn dëkk États-Unis particulièrement moo ko doon tuumaal nekk dafa def kii yu bare situation boobu nag fexe bi ñu ko jàppee téye ko Cap-Vert moom ci boppam parce que dafa yaakaaroon ne que àqam euh, dañ ko violé mu jël affaire bi yóbbu ko cour de justice de la CEDEAO li tax nag euh, affaire bi tax mooy que waa ji dafa ni moom bi muy ñëw ci dëkk bi Cap-Vert dafa nekkoon diplomat te yoon bi ñu am li ñuy wax droit international yoon bi nga xam ni moom moo yëleef euh, dëkk yépp ci àdduna dafa ni nit bu nekkee diplomat bu wàccee ci dëkk kenn waru ko jàpp ni ñu bi ñu koy jàppee dafa am fànn ñu léegi ni ñu koy defee. Hmm. Euh, léegi nag euh, cour de justice la CEDEAO moo ñu nar a wax. nekk ci kayit yu ko waa ji présenté ak li ko waa ji wax. ndax moom bi muy bi ñu koy jàpp ci Cap-Vert ndax diplomate la woon wala du diplomate. parce que bu fekkee ni diplomate la kenn du ko jàppee noonu jël ko rek yóbbu ko États-Unis te bu fekkee ni du diplomate euh, waa Cap-Vert am nañu sañ-sañ jàpp ko yóbbu ko ci tribunal tribunal bi wone naka lañu fexe ba mun jël ko Cap Vert yóbbu ko États-Unis pour foofu ñu mun ko fa àtte. bu ñu waxee nag ci cour de justice la CEDEAO ci boppam xam nañ ni gannaaw coowal sab bi nga xamante ne moo nekk seen loxo nemmeeku nañu tamit yenn dogal yi nga xamante ne bu ñu ko jëlee am na ay état yu ko du respecté bokk na ci sax Sénégal ndax woon nañu ci kaaw Karim Wade ak Khalifa Babacar Sall waaye état bu Sénégal dafa bañ a dëppoo ak moom ndaxam cour de justice boobu doole giñ ko jox am na ko waxam yooyu la tamit comportement yi état di am est-ce que wàññi li nga xamante mooy gëdd bi ñu waroon jox cour de justice bi ci boppam. doole bi moom euh, defe naa ni am na ko parce que nit ñi ci seen bopp ci sunu région bi. Mhm. Euh, ñoom ci seen bopp ñoo jox cour de justice la CEDEAO doole boobu. parce que léegi dëkk boo gis ci fukki dëkk ak juróom nga xam ni ñoo booloo te créer CEDEAO. problème bu am ci dëkk yooyu rek dañuy jékki-jékki nañ dem cour de justice de la CEDEAO loolu wane na ni que non seulement que nit ñi xalaat nañ ne que cours bi am na njëriñ mais que bi bus boo demee ci kanamam pour euh, mu euh, sotti sa ay problème en tout cas li muy décision yu muy jël yëpp yaakaar nañ ne que décision yu baax la décision yooyu dafay gën a tax euh, ak doomu aadama di gën a protégé ci biir région mm-hmm. ñaareelu point bi nga bi nga wax nag mooy li nga xam ni ndax dëkk yi dinañu respecter décision wala am nga loolu. Euh, mun nga ko seetee ñaari fan na bu njëkk bi mooy. bés bu décision bi ñëwee rek ñu ne. cour de justice de CEDEAO nee na lii rek. yow dëkk bi ñu ñëw kii ka def ko loolu. am na dëkk yu koy def. am na dëkk yu nga xam ni bés bu ñu leen condamné rek. ñoom dañ koy jéem a dañ koy jéem a appliqué. Gambie bi bi ñi nga xam ni sorewuñu. Euh, amoon na benn euh, journaliste bu ñu faxe yoon. Gambie ñu condamné que. famille bi dem cour de justice de la CEDEAO. ñu jox leen ndàmpaay bu xaw a rëy. gouvernement gambien bii ñu ci nekk fay na ndàmpaay boobu wane na ni que respecté na mais am na yeneen dëkk yu nga xam ni nag bu fekkee ni affaire yooyu yi nga xam ni foofu la ñu li ñu yóbboon cour aw dafa uh, xaw laal politique dañuy xaw uh, a bañ wane daal nekk ñoom uh, du ñu ko appliqué dans l'immédiat mais boo seetloo yaa ngi di ngay wax léegi yaa ngi joxe exemple Sénégal boo ko seetloo ci bu baax mais ñu ngi koy appliqué te waxuñu ko. benn affaire bi nga ma waxoon léegi mooy affaire Khalifa Sall. mu xalifa Sall demee cour de justice de la CEDEAO di wax euh, ak xam dañ ko gouvernement sénégalais def ko violé woon am na benn kii benn décision bu mag bu cour de justice de la CEDEAO waxoon. nekk député kenn du ko jàpp comme ni ngay jàppee ñeneen nit ñi. que député munoo ko jàpp tëj ko ci kasso tant que assemblée nationale amul ci wàll waxu ci wàll. gis nga barki démb euh, histoire bi nga xam ne moo tar na fii ci Sénégal euh, bu concerné Sonko gis nga ni que bi gendarmerie convoqué Sonko ba Sonko bañ lan lañ ci teg ñëpp nee nañu assemblée nationale moo war a mbir mi te assemblée nationale ajjuma bi passé xaw ma alxamis bi passé defe naa tey xaw ma suba dinañu euh, dajawaat voilà tey la ñuy dajawaat pour mun a kii loolu mi ngi lay firndeel ni que rek li cour de justice CEDEAO waxoon Sénégal ñu ngi koy appliqué mais waxuñu ko loolu nag moo tax euh, kuréel yu mel nii baax ci dëkk parce que euh, dëkk yi dañuy def kii yu bare yu nga xam ni dafay jalgati yoon mm-hmm. mais boo amee kuréel yu nga xam ne nii bés bu ñu jalgatee yoon ñu wax dinañu gis ne au moins nit ñi après dinañu topp yoon bi. mbiru Ousmane Sonko boobu nga doon évoqué sànq ndax yaakaar nga ni mën naa tàbbi ci cour de justice de la CEDEAO. waaw xam nga cour de justice de la CEDEAO euh, doxinam mooy lii gis nga nit bu nekk ci fukki réew yi nga xam ni ñoom ñoo euh, bokk ci CEDEAO. boo nekkee ci fukki dëkk juróom yooyu boo xalaatee ne sa ax wala sa yelleef dañ ko jalgati rek. mun nga sax bàyyi sa tribunaux. yi ci dëkk bi nga foofu directement ñoom ñooy lay ñoom ñooy régler sa problème après boo amee sa décision après nga ñëw fii pour ñu euh, ñu ñu faj ko ci biir dëkk ah, loolu mooy yoon bi nga xam ni loolu mooy yoon bi te mais euh, am na tam beneen yoon xam nga boo demee ci sa sa dëkk bu ñu la euh, tuumaalee nga dem ci tribunaux yi. tribunaux yi jël benn décision bu nga xam ni yow ci sa bopp yaakaar nga ni que tribunal bi ci boppam moo violé sa sa moo violé sa mooy li Khalifa Sall def par exemple mu ñëw mu ne tribunalu Sénégal parce que bi ñu ma jàppee euh, waxul nekk waruñu jàpp député ah, mu jël affaire bi yóbbu ko fii lii tam euh, bu Sonko xaw ma euh, affaire am bi fu muy mujjee hmm. mais bu fekkee mujjee na tribunal ba tribunal ba moom mu xalaat nekk tribunal do doglewul ci ci yoon moom mun na jël affaire bi yóbbu ko ci cour de justice de la CEDEAO parce que bu boobaa du wax ne que kii bi moo dafay wax ne que état bu Sénégal ci yu euh, ak tribunalam ñoom ñoo violé droit am loolu moo tax mu koy mu koy yóbbu foofu ci affaire bi donc mun naa ne euh, affaire bi mun na mun na mujj ci ci kanamu euh, juge tribunal wu Abuja. maam bu fekkee ne privée la kon. jërëjëf <laughs> alors yow bu boobaa bu boobaa. Mm-hmm. du du wax ne que euh, ki ki ki mu ki ki nga xam ni moom la doon xulool ci kanamu tribunal yi kooku kooku la fay yóbbu mais état bu Sénégal lay yóbbu ci cour. parce que mm-hmm. cour bi euh, li muy régler mooy problème entre nit ñi ak seen gouvernement. mais pas entre ñaari nit ñi seen biir. Mm-hmm. loolu moom du yoonu cour de justice. d' accord alors yow en tant que membre fondateur bu rado ñu nemmee ko Sénégal ak yi wees yëpp daanaka bu ñuy nat réew yi nga xamante ne dañuy salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama euh, Sénégal du am woy wu rafet ci wàllu woowu ndaxam yow ci sa wàllu bopp yaakaar nga ni Sénégal ñu ngi dëppoo ak lu ñu xaatim ni kon respecté ak ak yelleefu doomu aadama te ci suma yaakaar de euh, Sénégal def na ay def na lu bare ci mbirum àq ak euh, yellu doomu aadama parce que gis nga jamono bi ñuy créer RADDHO jamono yooyu euh, boo mos bu ñu la mosaan jàpp ba yóbbu gendarmerie wala police hmm, boo fa génne moom lu bare bare ngay wax Sénégal yàgg nañ ko di tuumaal ci kanamu euh, kuréel yooyu ci problème mu li ñuy wax torture ak problème yu ñuy wax euh, ñàkk respecté euh, ak doomu adama hmm. parce que jamono yooyu ak léegi wuute na parce que léegi dootoo dégg ci sax torture bu bare en tout cas boo koy déggee ñu bare ñu nga xam ni dañ leen tuumaal ne dañu torturer nit dañ leen di jàpp tëj leen kaso am na alkaati yu bare ak gendarme yu bare ñàkk nañ seen liggéey parce que ni ñu doon euh, traité ni ñi ci biir tribunaux yi ak ci biir police yi ak ci biir gendarmerie yu baaxul woon donc mun naa ne ci côté boobu Sénégal vraiment euh, ngalaama am na ñu nga xam ni def nañ ko hmm. euh, ñaareel bi naa ne tam gisee am na yenn kii yu bare yu problème yu bare yu nga xam ne bu ñu ko amee surtout bu lalew politique hmm. su njiit yi ni ñuy gérer affaire yooyu du baax hmm. te ba léegi dafay kii gis nga euh, euh, yàggul euh, defe naa daaw la woon am gouvernement Sénégal teggil na ndombo tànku ñaari fonctionnaire mhm. yu demoon Genève pour wax waxum wa noonu Karim Wade ak ñooñu mhm. ñooñu li fa wax sax wax aayul mais parce que Karim Wade la woon ak Khalifa Sall. Mhm. ñoom yaakaar nañ ni que ñooñu waruñu woon waxee noonu ñu ñu ñu ñu dindi la ndombo tànk. Mhm. donc dafay wane ni que gouvernement yi tam ci seen bopp ñoom am nañu wàll ci respect euh, mbirum euh, ak ak doomu yi ah, yelleeku. ñi ñu tekki seen ndombal tànk parce que dañuy wax ci troisième mandat contre. Eh, eh, waaw ak lu lu bare loolu loolu loolu am na mm. mais pour man li gën a am solo booy wax affaire ak. essentiel ku doomu aadama fii ci Sénégal mhm. mooy euh, xam nga euh, mbir mi euh, boo ko seetee bu baax surtout buy booy bu ñuy wax waxu jigéen ak waxu xaleel mhm. ah, dafay nekk mbir mbir mu xaw a parce que dafay wone situation jigéen ñi ak situation xale yi kii gis nga Sénégal dañu ne fépp fu nga xam ni dañuy def élection góor ak jigéen ñoo war a fépp fi ñuy def élection hmm. mais euh, seetlu nañ ko am na dëkk yu nga xam ni am surtout jege nañu foofu euh, sëriñ yu mag nekk ah am na ku kuréel yu nga xam ni amul sax jigéen mais hmm. kenn du ko kenn du ci wax boo seetlee tey ci mbirum famille hmm. euh, góor ak jigéen amuñu tolloowuñu ni ñuy régler ci mbirum xale yi ci yoon xam nga li ñuy wax ba léegi loi Sénégal euh, nee na euh, góor ak jigéen ñoo yem mais boo ko seetloo euh, ci mbirum kër bi góor ak jigéen yemuñu loolu dafay wane ni que société sénégalaise ba léegi am na lu bare lu bare lu bare lu mu war a def pour que góor ak jigéen ñuy yemoo comme ni que yoon santaane hmm. mais loolu nag du du lu ñuy sotti ci benn fan ci ñaari fan hmm. parce que sunu société yi ni ñuy fonctionné loolu la ñu war a kii mais dinañ di suma yaakaar man de euh, euh, euh, am naa xel bu rafet ci loolu parce que yaakaar naa ni li yoon dëkk day dox kii day dox mais li li ñu li ñëw dina wane ni que société bi ci boppam dina dem dem ci kanam dina def changement yooyu. Mm-hmm. même chose ak xale yi. Mm-hmm. xam nga mbirum taalibe yi. ni ñu koy gisee ci mbedd mi ak ni ñu leen di traité affaire yu nga xam ni ñu ñu ngi koy yóbbu ci kaw tribunal doy na waar doy na waar te kenn bëggul nga jur sa doom gis sa doom mu mel ni te taalibe yi nekk ci mbedd mi ak yooyu mhm. te tey boo seetoo euh, même état bi buy jéem a de buy def ay jéego pour euh, jàpp ñi nga xam ni ñooy nasaxaal ñi nga xam ni ñoom ñooy traité xale yi kii bu ñu leen yóbbee tribunal fàttalikoo euh, daaw xaw ma daawaati géej euh, te euh, ay taalibe yu ñu nga xam ni dañ leen yeewoon ci garab bi ñu leen ñi ñi doon ñi ñi ñi leen traité noonu ci tribunal mais dañu yàq tribunalu Louga da mm-hmm. pare dara dara xewu ci même yàggul sax fii ci Diourbel benn waay bu nga xam ni mais ni mu doon ni mu ni mu kii woon Euh, taalibeem dafa mel ni mbaam la yore woon wala xar la yore woon. Hmm. bi ñu ko yóbbee ci tribunal mais bés boobu dañuy obligé woo gendarmerie ak police pour ñu ñu protéger waa tribunal. ñu ngi léegi loolu yëpp maa ngi koy wax pour wane ni que. Hmm. ba léegi ci biir dëkk bi am na yu bare yu bare yu nga xam ni war nañ ko waxtaanee ci biirum àq ak yelleefu doomu aadama parce que euh, société bu boobu bu ñu buggee dëkk bi avancé ci loolu. Hmm. ñëpp waxtaanee mbir yooyu. Euh, ba pare def en sorte que li Sénégal euh, li mu signé. Mm. Euh, ci ak yenn kuréel yi ñu mun a fexe ba si loolu mu signé mu ñu mun ko appliquer ci biir dëkk bi. Mm. loolu di jafe na te yombul wante dama yaakaar ni que rek ñun ñëpp ñoo bëgg suñu baaxoo dëkk ñun ñëpp ñoo bëgg ñu ñu ak jigéen ñu traité leen d'une certaine manière donc ñun ñëpp ñoo war boole suñu doole te def suñu kéemtulaay kàttan ndax euh, li Sénégal signé ak li nekk ci suñu constitution. Mhm. ñun ñëpp ñu dund ko. Euh, euh, pour mu Sénégal jëm kanam. sëñ bi Ibrahima kan maa ngi lay gërëm bu baax. man tam maa ngi lay sant pour invitation bi nga ci sa rajo. ma fàttali kon yow membre fondateur bu RADDHO nga nekkit spécialiste ci wàllub CEDEAO ak yeneen institution internationale di liggéey tamit ci OSCEWA. jërëjëf.